mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom di dajewaat ci bind bi ñuy jël ci wàllu fiq ñu koy sukkandikoo téere bi di risaala bu ibn abi zayd al qayrawani rahimahullah ñu ngi nekkoon ci fanweereelu bunt bi ak juróom-ñeent muy baabun fil faraid ñu war a jël tey incha allah bunt ba ca mooy bind ba ca mujj bu dee ni da nga yor muul bu xonq bi yaa ngi ci page cent neuf boo xoolee rek ci à peu près quatrième ligne ba ca kaw su dee da nga yor samarudaani bi yaa ngi ci page six cent quarante deux ci ñaareelu ligne bi mooy fi muy waxee ni wal mutallaqatu salaasan fi lmarad wal mutallaqatu salaasan fi lmaradi tarisu mi ngi noonu tey jii mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rabiu saani di tombeeg le treize décembre ci deux mille vingt bi mbokk ñi ngi nekkoon ci buntu miiras war koo jeexal tey bi iznillah mu am rek loo xam ni jullit yépp war nañ koo xam même bu ñu xamul ni ñuy miiraase mooy nit ki bu dee daa faatu mboolem alal ja nga xam ne bàyyi na ko dafay am àq yu ca war àq ba ca jiitu mooy ay borom su doon daa bàyyi dix millions ca bàyyi dix millions bor alal ja yépp la ñu war a jël fay faye koy borom kenn amul droit teggi ca dara bor yooyu it bokk na ca la yonent bi alei salaam doon wax nee na boru yàlla moo gën a yey ca loole mooy bu waroon a génne zakat dañ ko war a génneel zakat mi ngi noonu ñaareelu àq bi mooy li ñuy tuddee wasiya mooy testament ba mu def testament boobu itamit dañuy gis ni yàlla may na ko jullit bi ci ceeru alalam yàlla wërsëgaloon na ko bi muy faatu am na trois millions un million ba am na droit a dénkaane ca la ka ca neex trois milliards un milliard ba am na droit dénkaane ko la ka ca neex mi ngi noonu la ca des ay njabootam ñoo koy jël loolu njaboot gay jëlit tuyaaba ju rëy la koy ñeel kii di saad ibn abi waqas mi ñu duppee jàkk ji ñu nekk rasul sallallahu alayhi wa sallam seet si na ko ci feebaram na ko man kat dama ragal sama bopp yàlla wërsëgal na ma alal ci ay doom yi jigéen rekk may doon dama bëgg a sarxe sama deux tiers alal ay masalan amoon na trois millions dama bëgg a sarxe deux millions yi yonent bi na ko loolu ëpp na mu ne ko kon ma sarxe genn wàll ga bokk yonent bi ne ko loolu ëpp na mu ne ko waaw ma sarxe ceer ba bokk yonent bi ne ko waaw ceer doonte ne sax ceer ëpp na waaye nag mën ngaa def ceer loolu moo tax ba da ngay gis ni nit ki jëloon ceeru alalam dénkaane ko def na lu lislaam nangu waaye bu ko mënoon a wàññi sax tuuti loolu mooy la gën ndax la ci yonent bi alei salaam tegal ko ci ne ko nga bàyyi sa njaboot am loo leen bàyyee ba du ñu dem di ñaan kenn day moo gën nga bàyyi leen ñu doon njaboot gu tumurank loolu it kon mi ngi noonu xamal ni la ngay góorgóorlu ba bis boo dee sa njaboot mën cee sukkandiku jàll loolee tuyaaba ju rëy la lay ñeel moo ëppoon tuyaaba nga jël ko sarxe ko bàyyi leen kon alal ji loolu mooy la nga xam ni moo cay jubluwaay bi allahuma lu dul yenn yu sew sewaan yi ca borom bi tudd mooy loolee nga des nga xam ni jegeñaale yi koy donn mooy ñi am nañu ko war a doon ña nga xam ne du ñu doon suñu borom mu ne bu ñu fekkee séddoo ba nijaay yaag léeg-léeg bàjjen yaag jarbaat yaag dëkkandoo yaag miskin yaag ñoo ñi nga xam ne amoon nañu ak yow kóllëre ca bokkuñu ci ñuy doon suñu borom mu ne nañ jël ab ciir jox leen ko loolu nag day dépendre rek ci mag ña fa toog nan lañ ko gisee ñu jël loo xam ne dañ koy jox jegeñaale yooyu nga xam ne dañu doon la ca des nag borom bi moo ko détaillé boppam détail ba mi ngi jëkk a nekk ci téereb yàlla bi gannaaw ba la nga xam ne moom la ca sunna wax ak borom xam-xam yi moom lañ doon jéem a jàng ci dimanche yu mujj yi ñu fi daje yépp ba yëg si tey ci suñu bind bu mujj mooy bu dee samaro daane bi yëpp ak 642 la ñuy xool 642 ci deuxième ligne bi rek wal mutallaqatu thalathan naam su dee bokk nañ ko gis day wax ni wal mutallaqatu thalathan fi maradin koo xam ne dañ koo fase ñetteelu fase ca feebar ba tarisu zawjaha kooku day donn soxnaam day donn borom këram ba ko fase in maata min maradihi su dee deena ca feebar ba mu ko fase wala yarisuha bu doonte ne soxna sa moo faatu nag waaja moom du ko donn wa kazalika in kaana in kaana talaaqu waaxida naka noonu bu doon benn fase la ko fase wa qad maata min maradihi ba pare mu dee ca feebaram boobi zalik baadal idda gannaaw ba soxna sa idda woo ba jeex du tey soxna sa day doon wa in tallaqa saxiixu imraatahu su dee ko dara jotul moo fase soxnaam talqatan waaxida benn fase fa innahuma yatawaarasaani su boobaa ñoom ñaar ñëpp dañuy doon nante maa kaanat fil idda fii yéeg ñi ngi nekk ca biir idda ba fa in fa in intaqadat su dee idda ba jeex na fala miraasa baynahuma baadaha su boobaa doonante doom seen diggante gannaaw loolu wa man tazawaja imraatan fi maradihi koo xam ne dafa takk soxna ci feebaram lam tarishu ku mel noonu soxna sa du ko donn wala yarisuha moom it du ko donn mi ngi noonu kon mbokk fii day wax ay atte benn waaye ngi nii feebar na feebar boo xam ne il est condamné mu daa di fase benn soxnaam loolu lu bari la xel yi di jàpp mooy kii da koo bëgg a xañ miiras looloo tax mu ne même bu doon ñetteelu fase ba la ko fase te xam ngeen bu doon dara jotu ko nga fase soxna ñetteelu fase su boobaa kenn ci yéen ñaar du doon sa moroom maadaama fase nga ko ñetti fase jeex na léegi nag moom da koo fase ñetteelu fase ci biir feebar yàlla dogal mu faatu ca feebar ba ñu ne su booba soxna si day donn bu doon soxna si moo faatu waaji du donn waaye waaji ko faase moom day donn te loolu bokk na ki ko jëkk a jëfee mooy Usmaan ibnul Affaan radiyallahu anhu Abdurahmaan ibnu Awf nekkoon na ci borom ala alali sahaaba yi ci feebar bi mu faatoo am na soxnaam bu mu fase woon ñetteelu fase waaye Usmaan da koo donn loo loolee ngir bañ ëllëg ci sibir doomu aadama bi dem ba xam ne man mii kat ci dee laa jëm nga tànn ku la neex ci say soxna fase ko ngiree génne ko ca la nga xam ne mooy mooy miraas bi loolu mooy benn beneen kaa bi mu indi mooy kii daa fase soxnaam benn fase kon ñoom ñaar dañoo war a doon nanti fekk idde bi jeexul waaye bi mu koy fase daa fekk mu feebar te feebar boobee ci la dee léegi nag idde bi jeex waa ji dee su boobaa dañ naan soxna si day doon maadaama feebar boobu ca la ko fasi idda ba jeex na waa ji dee na dañ naan soxna si day doon da xëy lii day nangu ba tey it day jàpp ba tey it ne da koo fase ngir xañ ko la nga xam ni moom mooy ndono googe beneen kaa bi nga xam ne indi na ko mooy ñaar ñoo mooy koo xam ne moom dara jotu ko mu daal di fase soxnaam soxna si iddewu ci biir idde bi moom mu faatu su boobaa soxna si day doon tant que idde bi jeexul soxna si day doon bu dee fasem delloo la même bu doon ñaareelu fase bi ci idde bi jeexagul soxna si day doon su soxna si deewoo nit moom da koy doon parce que soxna mi ngi iddewu idde ba jeexagul soxna sa faatu da ngay doon soxna sa comme boo dee woon da lay doon mu utee kaa bi mu njëkk a wax ci kaw kii fase soxnaam ñu ragal ne da koy xañ miraas moom soxna si dana ko doon waaye moom du doon soxna soosee loolu kon ñu xam ko gépp ko fase jigéen ci idde ba jeexagul day doon soxna si da koy muuru da koy muuru mooy da koy tënji ndax dañ koo jàpp fase soxnaam la ba léegi ndax idde ba jeexagul amma bu dee idde ba jeex na moom jeex na ndono amatul foofu mi ngi noonu idde bi jeex na tey ci su bëgg a waa ji dee ndoonu amatul foofu mu indi it ñeenteelu kaa kii moom dafa takk soxna ci biir feebaru deeyam mu dem takk soxna yére la xel yi di jàpp mooy kii kat da koo bëgg a doonaloo rek waaye moom soxlawul soxna yi soxna si ji mi ngi noonu waaw takkoon yoroon benn jabar tey jii yaa ngi war a dee sumun bi lay donn nga takk keneen da koy siddoog moom ñu ne bu dee ci feebaru dee boobee nga ko takkee dee ca su boobaa dañ naan soxna su du donn te loolu it ni ko sharia jàppe ah wallahi noonu la amee benn waay nettali na ma ci ñi ñëw fii ci jàkka ji koo xam ni dafa doon bëgg seen benn doom ñu dem ba ci biir xale bu jigéen ba bañ mu daal di gis sama waajoojee da ko gis nga diw man dama laa yéene sa njaboot ci sama alal rek waaye soxluwuma jabar mais man dama condamné li ma dese ci dund bëriwul moo taxoon ma ne su ma takkee sa njaboot daan ci doon yàggul dara waaja de loolu dañuy jàpp xamul woon atte bi ndax ñun xam nañ ko kooku ab médecin la woon ko bëggoon diine waaye atte yi xamu ko woon waaye loolu kenn du ko def mbokk julit takk soxna ngir mu donn la kese loolu kenn du ko def fase soxna ngir xañ ko ndono loolu kenn du ko def loolu kon dañuy gis ne moom mooy aju ci wàllu googu nga xam ne ci wàllu soxna yi la bokk incha allah su dee bala ñu jël ba ñeen bind ku am lu ko lënt ci lii ñu jot a wax ci wàllu soxna yi bu dee am nañ ci question ñu posé ci question buñ ci amul ñu jàll ci leneen incha allah naam bu dee ne am na ko am question ci ndono diggante jëkkër ak jabar naam waaw naam ala kulli xaal bu dee ne ñëpp comprendre nañ fa lillahi alhamd kon bu dee ne dañuy jël beneen bind day wax ni wa tarisul jaddatu li ummi sudusa kii di yaay ci kii di maam bu jigéen boo xam moo jur yaayu ka faatu dañ koy jox sixième alal ja juróom benn junni la woon benn junni ba moo ko moom su dee kay yaayi ka faatu dundul wa kazalika allati li li abbin naka noonu yaay ja juru baay ku mel noonu itamit dañ koy boole ci sixième boobee fa nijtamaa fa sudus baynahuma su doonte ne ni ñoom ñaar ñi ngi nekk di dund mooy yaayi ku jur baay ak yaayu ku jur yaay fekk baay dee na yaay dee na ñaari maam yooyee ñoom la ñuy boole sixième alal ja illa an takuna lati lil umm aqraba bi darajatin fa takuna awla bihi lu dul ne yaay jëjur lu dul ne maam jëjur yaay moo gën a jege ki dee ca yaay ja ca maam jëjur baay su boobaa kon maam ja juru yaay day féetewoo alal ji li annaha lati fiha nas ndax moom lañu am tegtal bu leer ci sharia ne dafa war a donn mi ngi noonu wa in kaanat lati li ab lil abbi aqrabuhuma su dee ne nag yaay maam ja juru baay moo gën a jege fa sudusu baynahuma du tee sixième ba dañ leen koy séddale nisfayni ñu daal di leen koy yemele ci ñoom képp wala yarisu inda malik aksaru min jaddatayni bu dee ne ci malik du donn lu ëpp ñaari maam ummul ab mooy yaay jojur baay wa ummul umm ak yaay ak yaay jojur yaay wa ummahatihima ak la nga xam ne mooy seeni yaay wa yuzkaru an zayd ibn thabit donte ne ku mel ne zayd ñu ne annahu warasa thalatha jaddat moom donn loo na ñetti maam wahidatan min qibali l umm kenn ca côté yaay wa isnatayni min qibali l ab ak ñaar ca côté baay ummul ab yaay ba jur baay wa ummu abil ab ak yaayu ka nga xam ne mooy baayu baay walam yuhfaz an il xulafaa'i tawriisu aksara min jaddatayni doonte ne bu ñu delloo ca xulafaa'u gisuñu ñuy donnaloo lu ëpp ñaari yaay ñaari maam mi ngi noonu mbokk gis nañ ci téere bi yàlla bi suñu boroom day wax ne ki faatu su dee dafa bàyyi doom yaayam un sixième lay jël waaw léegi nag moom faatu na yaayam faatuwul na jiitu ko waaye maamam bi jur yaayam mi ngi dund su boobaa dañu naan kon sixième bi ñu waroon a jox yaayam dañ koy jox maamam ji nga xam ne moo jur yaayam loolu yi ci kaa boobu la maam di doon ni léegi nag bàyyi mit faatu na waaye yaay ji jur bàyyam mi ngi nii ñu ne ah kon it moom day day doon ñu ne kon nañ jël sixième boobu muy sudus bi séddale ko ñaari maam yi séddale ko ñaari maam yi bu doonte ne ni maam ji nga xam ne moo jur yaay moo gën a jege ki faatu masalan waa ji faatu ye maam ji jur yaayam direct mi ngi dund amma bu dee maamam ji jur baayam faatu na waaye yaayam mi ngi dund nga xam ne kon diggante mi ki dee ñaari nit dox na fi amma ki jur yaayam moom kenn ñitte fi dox dañ naan kon ki jur yaayam day jël alal day jël sixième bi yëpp bu doon contraire ba moo am mooy yaay bi jur baay moom moo fi nekk maam bi jur yaay nekku fi waaye yaayam mi ngi fi nga xam ne moom digganteem ak ki faatu ñaar dox na fi ñaari doomam dox na fi su boobaa dañ ne kee nga xam ne mi ngi côté bàyyi moo gën a jege ki dee waaye du tee dañ koy séddale ak yaay ba nga ak maam ba nga xam ne moo jóge ca côté yaay ndax bu ñu xoolee ci sharia liñ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam moo am tegtal bu leer ne day donn maam bi jur bàyyi dañ ko ca yóbbaale rek loolee itamit nga la waay ñu bàyyi ci xel bu baax maam bu fa bàyyi nekkul day doon mooy maam bi juru bàyyi bu fa bàyyi maam nekkul day doon un sixième mu alal ja maam bi juru yaay day jël un sixième mu alal ja su dee ñoom ñaara fa daje dañ leen di séddale un sixième mu alal ba non ñaari maam yooyu nag moo gën a wér ci sunna na ñoom la ñuy donnale amma yeneen maam yooyee da ngay gis ne am na ci ixtilaaf comme niñ ko jële ci zayd ibnu saabit doonte ne zayd boobu yonente bi alayhi salaam daan wax sahaba yi afradukum zayd daana wax ki gën a xam ci yéen miraas mooy zayd waaye masala bi la ca borom xam-xam yi gën a dëppoo mooy ñaari maam la ñuy donnale wala seeni yaay direct bu dee ñoom nekkuñu fa mooy maam bi jur yaay ak maam bi jur baay ñoom rek la ñuy donnale ci côté boobee loolu kon mbokk moo aju ci miiras miraasu maam bu jigéen mu des nag beneen miraas muy miraasu maam bu góor ci moom moo gën a compliqué ci bunti miraas mooy miraasu maam bu góor ndax presque day am juróomi position yoo xam ne bu nekk mën na caa nekk ala kulli xaal mu ne wa miraasul jadd bu dee miraasu maam bu góor idan farada su dee moom dong nga fa nekk falahul maalu da koy ñeel alal jag yépp walahu ma al walad su dee ne nag dafa nekk ki doom dana ko ñeel moog doom ya zakari ay góor aw ma a waladi walad wala mu nekk faak doom boo xam ne doomu ka faatoo ko jur di góor su boobaa kon sudus lañ koy jox muy sixième alal ja fa in sharikahu ahadun min ahli siham su dee ne bokk nag moom kenn ca ña nga xam ne dañoo am cër ci miraas bi gayrul ixwa ci lu bokkul ak frère ya wal axawaat ak sœur ya fal yuqda lahu bi sudus dañ koy jëkko jox sixième am fa in baqiya shay'un su desee dara min al maali ci alal ji kaana lahu loolee da koy doon loo xam ne nii lu koy ñeel la mbokk day wax fii rek ne kenn ngi nii faatu na amul ay frère amul doom kenn nekk fa ku dul maamam bu góor maamam bu góor boobu alal ji yépp la ñuy jël jox ko moo ko moom maamam bu góor boobu place su baayam lay taxaw alal ji yépp moo ko moom léegi nag bu dee ne waa ji dafa bàyyi ay doom yu góor walla soxna si bàyyi doom yu góor baayam dee na ak maamam bu góor moo fa sës léegi maamam bu góor boobee moo moom sixième alal ji léegi nag day toog di xaar aw desit day toog di xaar la nga xam ne moo des masalan bu doonte ne moom ki bi muy faatu yaay rek la bàyyi ak ak ak la nga xamee ne nii mooy benn soxnaam su boobaa da ngay gis ne dañ naan yaay day jël la nga xam ne moom mooy ceeru alal ji soxna si jël la nga xamee ne nii moom mooy kaaru alal ji maam bu jëlee sixième am la des moom moo koy jël dafa nekk maam ak yaay kese maam ji muy bu yaay ji jëlee ceeru alal ji la ci des yëpp maam moo koy jël gannaaw ba mu jëlee sixième am li des moo koy jël loolu mooy ñaareelu kaa bi ñetteelu kaa bi mooy maam dafa doon koo xam ne nii ñu ngi nekk ci maam waaw mu ne maam dafa nekk koo xam ne dafa am te loolu jàngaguñ ko kon mu ne fa in baqiya shay'un min al maali kaana lahu da ko ñeel léegi muñ jëlee beneen bind mu ne fa in kaana maa ahli sihaami ixwatun su dee maamkat ñoo ñee am cër daf ci am ay frère fal jadd muxayyarun su boobaa maam dañ koy tànnaloo fi salaasati awjuh ci ñetti jubluwaay yaxuzu ayu zalika afdalu lahu mu jël ban moo gën ci moom imma muqaasamatu lixwa benn mu séddoog frère ya alal ja aw sudus wala mu jël ceeru min rasil maal ca bopp alal ja aw sulusu ma baqiya wala mu jël ceeru la nga xam ne moo des ci alal ja fa in lam yakun maahu gayru lixwa su nekkul ak moom lu dul ak frère yi kese fa huwa yuqaasimu axan wal axawayni su boobaa dafay séddoo benn frère wala ñaari frère aw adluhuma arbaa axawaat wala boog loo xamee ni nii dafa doon lu tolloog ñoom ci ay sœur ca mooy ñeenti sœur fa in zaadu buñ dollee ci lool nag fa lahu sulus maam day jël moom kon ceeram mi ngi noonu mbokk kon day wax ci kaamaam wax na la sànq moo fa nekk day jël alal ji yëpp dafa am ñum ko bokkal kon na jël sixième am la des mu jël ko léegi nag maam dafay nekk ki frère su boobaa dañuy xool frère yooyu bu doon te ne benn frère la benn frère la la gën ci maam mooy mu séddoog moom alal ci alal jaa ngi nii nekk ne ah six mille francs benn frère fi nekk kon maam daraan man damay séddoo bu dee ñaari frère it maam séddoo bi du ko lor ba tey mën nañu séddoo ku nekk jël ceer amma bu ñu ëppee ah ñaari frère su boobaa maam moom day jël au départ ceeram ndax maam ci miraas su dee ne doom amu fa ay frère kese fa nekk maam ceer lay jël ceer la moom walla mu daal di séddoo ak frère ya su dee ne séddoo ba kay du ko lor walla boog da cay am intérêt na doon tey jii dafa doon benn frère ak ñaari sœur du tey ñaari part rek lay doon frère bi dem benn part ñaari sœur yi benn part la ñu am kon maam bu séddoo ceeram du dem bu doonte ne ne cër yi dafa ëpp comme ni ma la ko waxee toujours maam bu naree ñàkk ceer rek day dellu ci ceeram maam it mën na nekk ci kaa boo xamee ne nii moom ci boppam dafay jël la nga xamee ne nii moom mooy sixième am mi ngi noonu mën na jël sixième am au départ su xalaatee ne kat buñ joxee borom cër yi man ceer ba may nar a desal loolee ma tey la jël suma sixième moo gën ci moom su boobaa da maam day jël sixième am moom pare ci miraas bi amma bu dee ne xam ne ne buñ joxee ñi seeni cër lay des kat su ma ko séddoo ceer ba mooy gën ci man su boobaa day jël ceeram loolee kon mooy masala yi nga xam ne yépp dafay daje ci maam ba ko ci ëppal intérêt boobee moom lay lay jël mi ngi noonu moo tax bu dee ne da ngay jàngaat mu ne fa in zaadu bu dee ne ëpp nañ ñe mi ngi noonu ëpp frère yi ëpp nañu fa lahu sulus da koy ñeel ceer ba fa huwa yarisu sulusu maam daal dana doonu ceer ma a ixwa ànd ak frère ya illa an takuna al muqaasamatu afdalu lahu lu dul ñu dem ci kaa boo xam ni mu siddoog frère ya moo gën ci moom mi ngi noonu wal ixwatu lil ab frère ya nga xam ne bàyyi lañ bokk ak kafaatu maahu bu doon ñoo ànd ak maam fii adami shaqaiqi ca fekk ne kenn ku mu bokkoon ndéeg bàyyi ne ko fa ka shaqaiq ñoom it dañ leen di considérer ne comme ñam bokkal bàyyi fay ni tamau suñu doo suñu booloo aaddahu shaqaiq su boobaa dana doon di ko lor ñam bokkal ña bokkoog kafaatu ndeeg bàyyi bi lazina lil abb ca ka nga xam ne bàyyi kese lañ bokk mi ngi noonu fa mën a uuhu bihim kasaratul miras su boobaa dañ ko xañ la nga xam ne mooy bari waayu miras ba su ma kaanu ahaq minhum bi zalik gannaaw ba daan nekk di gën a yey doomi bàyyee ci loolu mi ngi noonu mbokk kon fii day wax ci li ñu waxoon sànq bàyyi maam mi ngi nii ay frère la la desal miraas bi su dee ne kenn lañu walla ñaar maam day séddoog ñoom jël wàllam ñooñu bu dee ñoo bokk ndey ak baay léegi nag kenn ku mbokkoon ndey ak baay nekk fa maam daal kan la siqal alal ji mooy ñi bokk ak waa ji bàyyi su boobaa ñooñu bokk ak waa ji bàyyi dañuy taxaw place su ñoom bokkal ndey ak baay waxoon naa la ci njëlbeenu miraas ba ni góor gu bokk ak waa ji ndey ak baay bu fi nekkee ku mbokkal baay moom dootu doon waaye maadaama ku mbokkal ndey ak baay nekk fi ñoom bokkal baay ñoom ñooy ñëw su ko defee ñooñu ñooy séddoog maam bu boobaa it maam day xool ndax ma jël sama ceer dem moo ma gënal wala ma séddoo su dee kenn maam séddoog moom moo gën i nga noonu loolu bu dee ne ëpp nañ loolu nag maam jël ceeram moo gën léegi nag mu des beneen kaa kaa boo xam ne dañ koy tuddee kaa kaak lor masalan benn benn waaye ngi nii faatu na bàyyi na ay frère ñii dafa bokk ak frère bii dafa bokk ak moom ndey ak baay mu am yeneen ñaari frère yoo xam ne dafa bokk ak moom baay kese ak seen maam su boobaa bu ñu doon séddoo alal ji maam dañu naan ko kii kat léegi ñetti frère la bàyyi kon alal ji ñeenti cër lañ koy def ñeenti cër lañ koy def muy ñetti frère ak maam muy ñeenti cër buñ ko defee ñeenti cër ba pare ñam bokk ñam bokkal ndey ak baay wala kam bokkal ndey ak baay dañuy jël ci lu ñam bokkal baay dolli ci seen cër ndax ki bokk ak ndey ak baay bu fi nekkee kim bokkal baay dootuñu ko jox cër donte na ñoom lor nañ maam waaye duñ jël cër bi ñu ngi mel ni rek tey jii koo faatu bàyyi ay frère ca bàyyiwul doom bàyyiwul dara yaay bu bàyyiwuloon ay frère yaay ceeru alal ji moo ko moom amma bu dee dafa bàyyi bàyyi ak yaay dañ naan yaay kat comme am nay frère léegi sixième lañ lay jox mais frère yi xañ yaay ceer boobu ndax daan jël sixième bi déedéet dañ koy delloo seen baay naka noonu it ay doomi baay ay ay ñu bokk ndey ak baay ak i doomi baay bu dee ñoo maama sédd bokk miraas dañ leen di séddale ba pare ñam bokkal ndey ak baay jël cëru ñam bokkal baay loolee mi nga noonu xañ ko xañ ko ki nga xam ni moom mooy maam kon loolu loolu la wax ci wàllu googee moo tax mu ne daañ ko xañ lam waroon a bari la ci miraas bi boo jëlee beneen bind mu ne illa an yakuna ma al jadd lu dul dafay nekk ànd ak maam uxtu shaqiqa sœur boo xam ne daa bokk ka faatu ndeeg baay wala ha axun li ab tam ñeel ko frère boo xam ne baay kese lañ bokk aw uxtun li ab wala sœur boo xam ne baay kese lañ bokk aw axun wa uxtun li ab wala bokk mu bàyyi ñaar ñoo xam ne ñoom ñëpp bàyyi lañ bokk góor ak jigéen kon ku jigéen kookee bokk ak faatu ndéeg bàyyi fa taaxuzu nisfaha day jël ceeru day jël gennoolu alal ja mimma xasala ca la nga xam ne moo moo fa ñëw wa tusallimu ma baqiya ilayhim la ca des mu daal di koy jox ña fa xam ne ñoo fa des muy maam ak frère ya wala yur wala yurba kenn du jox cër lil axawaat ñeel ay sœur ma al jadd fekk maam ma nga fa illa fil ghara lu dul ci loo xamee ne nii dafa nekk ci ak xiirtal ak not dana ñëw ci kanam wa sanaskuruha ba'da hadha daañ ko jàngale gannaaw lii fii day wax rek mboo ko kaa kaa bi ñu wax sànq maam daa desal miraas bi ak i frère kon ñoom asaba lañu li des moom la ñuy donn tey jii nag frère amu fi ay sœur fi nekk su boobaa sœur yooyu mu deen kenn la masalan jenn wàllu alal ji moom da koy jël mu des jenn wàllu alal ji su ko defee frère ya nga xam ne nii ñoo fa des loolee ñoom la maam di séddool la nga xamee ne nii mooy desutu alal boobee loolu lay wax ca wàllu googee ci gannaaw loolu lay wax ci masala boo xam ne dina ñëw ci kanam mooy li ñu tudde alxara doonte ne ni bu dee ni bind boobu bàyyi nañ ko ñu jël beneen bind mu ne wa yarisul mawla al a'la ida nfarada jami al mal kaana rajulan aw imraa dana donn ka goreel ka goreel ju gën a kawe mboolem alal ja su dee moo fa sës ay ka faatu amul ku ko don te doon kooko góor la wala jigéen fa in kaana maahu ahlu sahm su dee ne am na ñu nekk ak moom ci ñoo xam ne dañoo am cër kaana lil mawla ma baqiya baadu ahli siham kon su boobaa ki nga xam ne mooy ka fi ka ka ka goreel daañ ko jox la des ba ñee jëlee seeni cër wala yarisul mawla ma al asaba ki goreel nag du donn su dee waaja faatu mooy jaamam ba mu goreeloon am na geño gu ko mën a doon wa huwa wa huwa ahaqu min zawil arham doonte ne ko goreel moo gën a yey ca ña nga xam ne dañoo bokk ak ka faatu ci wàllu ndey allazina la sahma lahum ndax ñooñu amuñu cër fi kitaabillah ci téereb yàlla bi azza wa jal wala yarisu min zawil arham du donn ñoo xam ne nii côté ndey lañ nekk mi ngi noonu ci illa man lahu sahmun fi kitabillah lu dul ña nga xam ne dañoo am cër ci téere bi yàlla bi mi ngi noonu mu ne wala yarisu nisa jigéen du donn minal walaa'i ca féete ga illa ma a'taq illa ma aqta'na lu dul ña nga xam ne ñoom ñoo ko goreel seen bopp aw jarrahu man aqta'na ilayhinna wala mu indi ko ñañ goreeloon ci moom bi bi wal wiladatin ca la nga xame ne nii mooy do jur gu ñu jur aw itqin wala goreel gu ñu goreel mbokk lii masala boo xam ne nii jafe na suñ jamonoy tey day wax ni ki nga xam ne daa goreel jaam ki goreel jaam jaam boobe moo moom boppam léegi mi ngi liggéey am na alal su dee ne am na alal dee na amul kenn ku ko doon kaka goreel moo moom alal ji yépp léegi beneen kaa mooy dee na am na ñenn ñuy doon waaye jeexaluñu alal ji masalan jot naa am jabar kon jabar ji moo moom kaaru alal ci la ca des yépp ki ko goree leen moo ko moom mi ngi noonu ay doomi jigéen kese la bàyyi ñoo moom deux ceeru alal ci la ca des ka ko goreel moo ko moom loolee lay wax ci wàllu googee mu ne même bu dee ne am na ñoo xam ne dafa bokkook ñoom côté ndey ñooñu du tax ñu jox leen alal ji ka ko goreel lañ koy jox bu dee ne nag am na ay ñoo xam ne ay géñoom lañ ñuy dund ñoom bokkal côté bàyyi ak lu ñu sori sori ka goreel moom dootul donnati bokk na it ci li mu wax dañu xam ne côté ndey du donn lu dul loo xam ne yàlla ko tudd ci téeréem te la ca yàlla tudd mooy wax nañ ko sànq mooy li nga xam ne nii mooy doomi ndey su dee ne waaje bàyyiwul bàyyi bàyyiwul ay doom su boobaa doomi ndey daan doon ku nekk sudus ak li nga xam ne jàng nañ ko sànq mooy yaay yàlla ko tudd ci téeréem bu fa nekkul cër ba ñu jox ko yaayam bi ko jurum yi maam loolee moo aju ci wàllu googee mi ngi noonu su ne dañuy jël beneen bind mu ne wa izajtamaa man lahu sahmun maalum su dee ne dafa daje ñoo xam ne am nañ cër bu ñu xam fii kitaabillahi ci téereb yàlla bi wa kaana zalika aksara min al maal ca loolu de moo ëpp alal ja udxila alayhim kullihim dañuy dugalante ñoom ñëpp képp ca ñoom udxila dugal na alayhim ci ñoom kullihim darar ku nekk bëgg a lor moroomam wa qusimatil farida dañuy séddale kon ndono la muy miraas ba ala mablaghi sihamihim dañ koy séddale comme la nga xam ne moom mooy seen cër ca miraas bañ ca war a am day wax rek fii sooy xool masala miraas léeg-léeg da nga am lu la jaaxal mooy ay cër yi duggante masalan suñu borom nee na soxna si faatu na amul doom su boobaa jëkkër ji mooy jël nisf ah ñu wëlbatikuwaat ne su doonte ne ne dafa bàyyi la nga xamee ne nii moom mooy ay ñaari sœur dañ naan ñoom dañuy jël deux ceeru alal ci su fa su fa ah nu ñu waxee yaayam nekkee ñu ne day jël sixième alal ci loolu boo ko xoolee loolu kenn du ko mën a def partage loolu moo tax su boobaa cër yi dañ koy yokk cër yi dañ koy yokk masalan dañ naan kon jëkkër yow trois nga yéen sœurs yi quatre ngeen bu dee dañ jël base bi six quatre ngeen yaay un nga dañ naan trois plus quatre égale sept yaay un muy huit léegi su boobaa dañ ko def xaalis dañ koy tas huit par jox jëkkër ji trois jox sœur yi quatre jox yaay la nga xamee ni nii mooy un su ko defee au départ jëkkër waroon na jël génnoo la alal ji waaye comme daa am ñu mu ko bokkal genn wàllu googee day day wàññeeku ñee waroon nañ jël deux tiers bi deux tiers boobu day wàññeeku loolu kon lay wax ci ne cër ay cër heure bu ñu dajee ci miraas du ñu lor kenn ay duñ njëkk a sédd kenn ndax ku njëkk a sédd rek lor nga ñu ci des kon dañuy boole cër yépp doog koo nag diviser ku nekk am loo ci ñàkk ci lay tëje sax ci misaal bu mel noonu lay tëjee mu ne ci bind bu mujj bi wala yu aalu kenn du nekk di yokk mooy di wëlbati cër ya di ko yokk lil uxti ñeel sœur ma al jaddi fekk dafa ànd ak maam illa fi l gara lu dul ci li ñuy tudde al gara wahdaha al gara boobu mooy lan wa hiya imraatun tarakat zawjaha soxnaa ngi bi mu faatoo jëkkëram rek la bàyyi wa ummaha ak yaayam wa uxtaha ak sëram li ab way ni nga xam ne ñu bokk ndeeg baay aw li ab wala bu mu bokkal baay kese wa jaddu jaddaha ak la nga xam ne may maamam bu góor bu doon miraas lu ñuy wax dañ naan fali zawji nis jëkkër jëkkat yaa moom cee yaa moom génnool alal ci walil umm sulus yaay yaa moom ceeru alal ci walil jaddi sudus ya yaay maam yow yaa moom sixième alal ji falamma faraxal maal bu dee ne kon alal ji day jeex uida lil uxti dañuy wëlbati ñeel sër ba bi nis ca ceeram ba mu yor ba mu yoroon salaasa muy ñett ndax buñ ko base ba six la day jël ñett ya summa jumi a ilayha sëhmul jadd gannaaw ba ñu dolli ca cëru ba maam ja fa yuqsamu ñu daal di koy séddale jamiu zalika mboolem lépp baynahuma ci seen diggante ala sulusin ci la nga xam ne mooy ceer ba laha mooy ñeel soxna sa wa sulusayni deux tiers ya lahu ñeel maam ja fa tabluhu sabaata wa ishrina sëhman mu nekk ñaar fukki cër ak juróom-ñaar ala kulli haal masala bi moom dañ koy jagleel ñu yàlla nattoo ñu nari miraas après incha allah day wax rek tey jii benn kaa ngi nii kii dafa faatu bàyyi na jëkkëram jëkkër ji moo war a jël ceeru alal ci masalan moo war a jël génnool alal ci masalan base baa ngi nii mooy maadaama yaay moo ci nekk muy sudus base miraas bi dañ koy def six jëkkër nag la bàyyi ak yaayam ak maamam su doon ñoom rek fa nekk benn problème du am ci loolu mi ngi noonu mooy jëkkër ji moom mooy jël genn wàll alal ji muy trois bu ko defee yaay ji mooy jël ceeru alal ji ndax ay frère amu fa muy deux ah maam ji jël sixième bi bi menace bi jeex na naam léegi nag dafa am sœur nag bu ci bu ci bokk ci sœur boobee moom moom it daa am genn wàllu alal ji da koo ñeel comme ni ni mu ñeele jëkkër ji su boobaa nag lu ñuy def dañ naan kon nañ jël ceeru ndaw si nañ jël nisfu ndaw si muy trois ñu dolli ko ci six yi muy neuf léegi ñu ne ñii nga xam ne dañoo amoon cër jiitu ko muy ñetti cër su ko defee dañuy jël ñetti bopp yooyu multiplier ko par neuf mu delluñu ci vingt sept trois fois neuf xam ngeen vingt sept la ñu delloowaat ci miraas bi léegi nag commencé jox ku nekk la nga xam ne nii moom mooy cëram ci miraas bi nu ñu koy delloo si waate mooy ku nekk la nga waroon yor dañ koy multiplier par trois te mooy jëkkër waroon nga am trois ñu ne waaw ñu ne kon dañ koy multiplier par trois ndax miraas multiplier na ko par trois multi multiplier par trois léegi yow neuf ngay am neuf. ñu ñëw ci ka nga xamee ne mooy yaay yaay yow la waroon a am mu ne deux ñu multiplier par trois muy six léegi neuf plus six égal ñaata quinze vingt sept la kon lan moo des douze mooy des ñu ne waaw sœur bi yow ñaata nga waroon am yow tamit mu ne trois ñu ne kon on multiplier par trois muy neuf ñu ne kon am nga neuf ñu ne maam la waroon a am mu ne un ñu ne multiplier par trois muy trois léegi nag kon yaay jël na six jëkkër jël na neuf sœur jël na neuf maam jël na trois miraas bi jeex na waaye nag ci wàllu miraas maam ci boppam dafay doon kuy jël desitu alal ay bu doon te ne sœur bi dafa nekkoon frère moom maam ji dañu war a séddoo alal bi bu dee ne sœur la maam ji daa war a jël duubulu ku jigéen ki kon su boobaa dañ naan hey sœur indi waatal sa neuf ñu boole ko trois yu maam du may douze day su ko defee ñu daal di koy xaaj ñetti cër daal di jox sœur quatre jox maam huit moo tax ci fin bi mu ne maam day sër bi day jël sudus maam jël la nga xamee ne nii mooy deux tiers ya kooku nag ñu ngi ko jagleel sëñ ndongo Thiam fexeel continuer jàng bu baax ba bokk ci ñuy miraas mbokk almuhim lii mooy benn base ci wàllu miraas nañ ko waxe woon ci njëlbeen nit mooy képp koo xam ne nii bëgg na ci lu gën a dal day fexe ba jël audio yi topp ko nank-nank topp ko nank-nank par point par point ngir mu mën koo jàpp loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am na ci loo xam ne nii daanaka ñëpp war nañ ko mën a xam ndax yàlla moo ko tudd ci téeréem masalan aaya yi ngeen dégg Cheikh Ousmane di ñu ko jàngal loolu mooy nekk onzième aaya ca suuratu nisa ak douzième aaya bala ñaari aaya yooyu ñoo tënk miraas la ko tëj mooy aaya bu mujj ci suuratu nisa suñu borom day wax foofu rek ne su dee ne nit ki faatu na bàyyi na ay doom góor ñaar jigéen benn loolu moom base la boo xam ne du changer bàyyi na ay doom góor nga wala jigéen góor ñaar jigéen benn lu dul fitna bi nga xam ne ñu bari ci nit ñi dugal nañ ko ci ñàkk xam jàpp ne bu dee yaayee faatu góor ak jigéen a war a yem wax nañ leen loolu erreur mënu ko paase góor ñaar jigéen benn suñu borom yàlla nee na ñett ay ay ay dafa bàyyi benn jigéen rek la bàyyi kon nañ jël genn wàllu alal ju jox ko képp ku dee bàyyi lu dul benn doom bu jigéen genn wàllu alal ju doom bu jigéen moo ko moom ñaari doom lañu wala ñaar fukki doom yu jigéen su boobaa nañ jël deux tiers alal ji jox leen ko yaay doom am na sixième lay am baay sixième lay am la des nag daañ ko jox baay mais yaay moom ci sixième am lay yem doom amul du tout yaay mooy jël ceeru alal ci allahuma lu dul mu bàyyi ñaari frère su bàyyee ñaari frère su boobaa dañu naan yaay sa ceer bi dañ koy xaaj ci digg bi jox le sixième la ca des ñu dolli ko la nga xam ne nii ah moom mooy baay loolu mooy ci ci gàttal la yàlla yi mujj wax wala boog mën nga wax sax lu yàlla tuddul ci téere mooy jëkkër ak jabar jëkkër moom ñaari miraas rek la am jabaram faatu na bàyyi na doom moo moom kaaru alal ja bàyyiwul doom moo moom genn wàllu alal ci bépp soxna ba faatu bàyyi woo doom sa genn wàllu alal sa jëkkër ko moom mi ngi noonu soxna si képp koo xam ne jëkkëram faatu na bàyyiwul doom kaaru alalam moo ko moom bu doonte ne ñetti ñeent ñoo koy séddoo ba bàyyee doom huitième mu alal ji la moom kaa ba nga xam ne nii tamit suñu borom wax na ko ci ay kaa ay frère frères yi moom bu dee ñoom rek ñoo fësës ñoom it dañuy séddoo góor ñaar jigéen benn su dee ne ay doomi ndey kes lañu ñoom kenn sixième lañ koy jox ñaar ñu boole leen ceer suñu ëppee loolu it ci ñoom la ñuy yem ca loolu mooy fekk ne seen bàyyi ne ko fa la ca mujj ca fee ba mooy alkala la kalaa la mooy lan kii bi muy dee bàyyiwul dara dara dara lu dul benn frère sunu borom ne alal jëpp nañ ko ko jox kii bi muy dee bàyyiwul dara dara lu dul benn sœur genn wala alal ji nañ ko koy jox kii bi muy dee bàyyiwul lu dul ay sœur kese kon nañ xaaj alal ji ñetti xaaj deux tiers yi ñu jox leen ko loolee mbokk moom yàlla ko tudd ci ab téeréem li ci des dañ koo jële ci sunna yonente bi ak ci ijtihaadu borom xam-xam yi loolu mbokk kon ab tënk la ci miraas yal na yàlla xamal ñu lépp lu ñuy jëriñ ci suñu diine wërsëgal ñu dund ko tam nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain soxna si moo gaañu soxna si gaañu duñu xoolati ñu jur ay doomam seeni bàyyi kenn du ko xool soxna si gaañu ay doomam bu doon fukki doom yuy bokkul bàyyi loolu kenn du ko xool ci miraas ay doomam la ñuy xool góor ñaar jigéen benn mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw oh naam miraasu doom yi ndey mooy kii dafa faatu bàyyi ñoo xam ne ndey kese lañ bokk ndey kese lañ bokk te fekk ne amul doom bàyyam dundul ñooñu la ñuy tuddee doomu ndey doomu ndey yooyu nag ñoo yem ci miraas bi li ñuy jox góor la ñuy jox jigéen la ñuy jox jigéen bu dee benn jigéen a sixième alal ja moo ko moom bu dee benn góor a sixième alal ja moo ko moom su dee ñaara ñu jox ku nekk sixième su dee ëpp nañ loolu ñu séddale leen ñaari sixième ya loolu nag bokkul ak ñoo xam ne seen ndey bopp moo dee bu seen ndeyu bopp dee moom góor ñaar jigéen benn suñ bokkee ndey ak bàyyi loolu moom beneen atte la ñoom dañuy jël de surtout alal su dee ne ñoom rek ñoo fa nekk ñoo bokk ndey ak bàyyi góor ñaar jigéen benn moom lay mooy aaye bu mujj ci alkalaala mooy wa in kaanu rijalan ixwatan rijalan min saan fa li zakari misul hazir unsayayn faatu na ñim ñim bàyyi ñëpp ñu bokk ndey ak bàyyi seen bàyyi nekku fa seen amul doom su boobaa góor ñaar jigéen benn mais bu dee ñim bokkal ndey kese su boobaa ñoom duñu paasa ceeru alal ci duñu paasa ceeru alal ji ñu fekke woon dara su dimanche bi gisoon nañ kaa boo xam ne demoon nañ ba doomu bàyyi sax ñim bokkal ndey bàyyi sax naruñu woon donnati Omar moo leen ci dugal xaw ma ndax fàtte nga li ko loon loolu naam ala kulli xaal mi ngi naan wallahu subhanahu wa taala bu dee dañu am ay doomi ndey bokkuñu bàyyi ne mais loolu kenn du ko xool kenn du ko xool bu ñu bu ñu nekkoon ñaar fukk yoo xam ne kenn bokku ci ak sa morom bàyyi li ñuy xool li ñu bokk ak aji dee ji ñoo ak aji dee ji ñoo bokk ndey su boobaa ñoom ñoo moom ceeru alal ji bu dee mbooloo lañu bu dee ñaar lañu jëm kaw bu dee kenn la sixième alal ji moo ko moom amma seeni bàyyi loolu moom kenn du ko xool mi ngi noonu wallahu aalam naam naam ala kulli xaal kon mbokku incha allah ñu doy doy loolu ah dafa lu yëkkatal ñu ah ah ah bu dee kenn koo bokkal papa waaw bu dee moom rek a fa nekk su boobaa moom day jël alal ji yëpp bu dee ne moom rek a fa nekk day jël alal ji yëpp su dee am na ñum fa nekkal ña nga xam ne ñoom la fa nekkal la ñuy jëkk a jox seen cër doog koo jox cëram donte ne ki nga bokkal papa bu fa doom nekkee du don bu fa bay nekkee du donn ka nga bokkal ndey ak baay bu fa nekkee du donn mi ngi noonu bu dee ñii ñëpp ne kenn nekku fa moom dana donn desitu alal ja mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain